wax deug yalla li ñuy wax ni rek euh, li ci bari sax du ngeen ko gis fenn fo xamni di ngeen ko gis muy faral di gene di waxtaan ak yoy jamais parce que mun naa wax ni temps wul lool ci gàttal muy ajaratu faama seen di ko xamni nak wax deug yalla mom ci li ngeen ko gis muy yeng moy walu ñaan yalla suñu borom rawti na jafé jafé doomu adama yi. alors ajaratu faama seen dañ ko seet pour waxtaan ak mom ci walu politique ak li nga xamni mo xew dembu xalé yi doon ko def muy teggum bol ñu tuddé concert casserole bo xamni gis ngeen li xewoon bi ñu ko njëkkee def maara day taali naam yàlla mooy dogal ci cyclo gis ngeen plus de quarante personnes ñoo fa dee woon bi ñu paree ci loolu ñenn ci borom xam-xam yi waxoon nañ ñi ne ñu ci mel ni ajaratu faama seen di tëggum mbool yi dafa am lu muy woote ci wàllu jinne ak seytaane mu mel ni loolu fàtte nañ ko waxuñ waxi politique ndax politique intérêt personnel la wala politique ngir nit ki li muy yootu pour mu jot ci alors ci biir tëgg mbool mit gis nañ ci ñu ngi ci sol ay yére yoo xam ne ay yére yu xonq la loolu di ci ñëw ci wàllu politique et puis it lan ngay wax président waaye dañ lay bàyyi nga nuyoo d' abord Ajaratu Fama Sène fii ci Galsen People ñu soog a ñëw nag ci li nga xam ne moo xew démb ak mujjub Ousmane Sonko. salaamaaleykum waa Sénégal maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu waa bitim réew nuyu képp koo xam ne kii xam nga kuy Fama di sant sama ñaari waajur. di sant sama wasila sëñ Fallou di sant samay dëkkandoo. Mm-hmm. maa ngi nuyu ñëpp bàyyi ma kenn. Mm-hmm. ayca jërëjëf euh, ci wàllu politique euh, ginnaaw avant génn gi am démb lan ngay wax président Macky Sall parce que nag wax dëgg yàlla ñu bari ñu ngi doon xaar pour mu bokk far yàlla dogal ni bokkul génn na wax ni bokkatul euh, yan kàddu ngay sànni ci moom moom njiitum réew mi. ndax bimu ko defé am lu bari lo xamni wañi nako fi. ah président mak Sall mom dañ koy sant rek. Mhm. ndax bam ko defé ba nag ñepp a ngi seen jàmm. Mhm. wàccoo naa ñëpp de. Mhm. sha allah. deug yalla problème yi fa amone yëpp jàll na. kon nak kep ko xamni ki yaangi fi nek hmm muy goor muy jigen muy mag muy ndaw bon nañoo mën am jom jo xamni ji ben problème mëna fa mëna a wat wallahi ak ngor. waaw problème bañ a am ak ngor. ngor ndax nee na bokkatul. bokkatul leneen lu ñu def ñu defee ko ci beneen façon. mais pas façon fitna. waaw. Mhm. dëgg yàlla wàcc na de liggéey na fi itam Macky Sall. Mhm. liggéey na fi ak lu mën a xew dañuy souligner liggéeyam mhm. ak lu mën a xew nañ souligner liggéeyam souligner lu fi doon def man Sonko sama doom la de. waaye Macky Sall jàmbaar la te it def nii ngor koy def su ko neexal mu fettaliwaat ngembam na acca waye dafa tek lepp suuf nga nay ak lepp ak lepp lo xamne doon nañ ko def ne lepp sedd la wax. na lepp sedd. na lepp sedd bokatul googu nga dégg mu wax ko dafa bëgg lepp sedd dafa bëgg lepp sedd. wa parce que wax na ni ne dara dara luy yàq réew mi du jugee ci moom. waaw dafa bëgg lépp sedd rek moo tax mu ne bokkatul. Mhm. bokkatul ngay di noonu dafa bëgg lépp sedd rek waaw. ndeysaan d'accord ñu gis démb. Sonko boobu ba tey mi ngi biir këram bokkatul waaye it keneen bu mu bokk est-ce que loolu mën naa nekk ndax Sonko boobu tey ñu ngi ko tëj këram ba démb anniversaire am mu woote waat concert kasaro ñu doon tëggum bool waaye avant ñu ñëw ci tëggum bool yi dina ñëw ci ñàkk bokk Sonko bi est que du jur fi deneen parce que nee na su bokkul réew mi mun na amaat mun na amaat musiba moom Sonko dañ ko war a bàyyi mu bokk nañu bàyyi ñëpp bokk bëgg a samp sa ndënd bàyyil ma samp sa ndënd kuy sa sens yàlla dina la ko dox mm-hmm. ñàkk bokk ak bokkut lépp ma indi problème yi mën nañ ko bàyyi mu bokk. mën nañu dindi barget yi ci barget yi ci buntu këram nañ ko dindi bàyyi ko mu bokk. Mm-hmm. ñu bàyyi ko mu génn dox. Mm-hmm. lii jeex jeex na ba pare te àdduna amul solo. wallaahi. àdduna amul solo de. waaw. àdduna amul solo. na ko bàyyi mu bokk loo gis. dañ ko bàyyi mu bokk. bool yi nga xam ne ñu ngi koy tëgg. waaw bool yi ci laay ñëw parce que bool yi démb gis nañ ni ñu ngi ko doon tëggaate ci suñ biir wax ci biir émission bi wax nañ la gis nga musiba yi muy jur te ku na xam ne ni bool am na lu muy jur léegi lan nga ñu ci mën a wax parce que nag wax dëgg yàlla ñu ci mel ni yéen it am na lu ngeen ci daan xam bu njëkk. bool yi waxan naa ko fi bañ ko fi doon tëgg ba jinne yi mag yëpp génn oto yi këpp nit ñi dee waxan naa ko fi de bool baaxul bool ak ku daal ku béeru ci nit baaxul waxumaa nawet bii da daan dégg bu nawet amee suñu maam yi naan bàyyi leen bool yi ngeen tëgg baaxut day kiis loo nit baaxut day def loo nit baaxut day yëkkati fitna bool baaxut baaxul waaw sama doom la de waaye nag li muy bool yi muy yeble baaxut nañ bàyyi bool yi laa ilaha moom nañ ko bàyyi mooy liwaat musiba bi déggoon nañ sax ñu naan bu njëkk mag ñu njëkk ñi sax bu ñu def bool wala dara suñ ko daan teg bu bu bool ba yënguwar dañuy tuur ñam boobu kenn du ko lekk bool baaxul weñ weñ saa yoo ko yëngalee yëngal nga fitna weñ baaxul del xool koo xam nga imancel koo xam ne ki kuy tëgg weñ di ko tëgg ba màggat di i weñ bay màggat suy feebar day kiris ba mami dee dañ baaxul yan ci àllum sal sax ci àllum bàyyi weñ yi mais euh, tëggu mbool bi dafa ànd ak ay yu xonq loolu lan la loolu xam naa ne xel xañ na seen miskit la wala muy loo xam ne dañ koy def pour maanaam tey ji bool yi bañ dana jàpp wala jinne yi bu ñëwee du leen xool xanaa loolu la ci yére yu rouge yi ñu sol foo ko takkee jinne du la laal te sànq ñu ngi laal booli jinne yaa ngi ñëw lu xonq fi la jinne solaloon tey jii fii solo lu day daw bëggul lu te bi biñ ko fi njëkkee tëgg naam yàlla mooy dogal mais gis nañ ay affaire yu fi xew Sénégal ay oto yu këpp kenn xamut la bi ñu wàññee mbir mi dafa mel ni wàññeeku noonu naam ah, tere woon nañ oto yi daw guddi mais lu bari wàññeeku na bi ñu bàyyee tëggum mbool yi hmm, dañuy génnaat tëgg mbool yi de dëgg yàlla war nañu dimbali lépp lu ñu mën di def nañ bàyyi tëgg mbool yi yi ak lépp lu ñu mënti def bu leen neexee manifester yore seen bi xonq takk bu leen neexee takk seen bopp loolu lépp ci kii la bokk ci loi la bokk ndax ay citoyen lañu war nañoo def lu ne. Mhm. mais bool yi moom dëgg yàlla war nañ koo bàyyi moom bool yi baaxul moom mi ngi ni problème rek. d' accord euh, bool yi war nañ ko arrêté mais am na beneen affaire boo xam ni seen nañ ko ci politique bi euh, tête yu bees ay xalifa Sall. ay euh, ñu mel ni ay Amadou Ba ñu ngi leen di tudd ay Abdoulaye Daouda Diallo ay Boun Abdallah Dionne euh, Sonko maanaam mu mel ni léegi dafa mel ni Sénégal ndaw ñi daal lañ gën a soxla ko mag ñi par rapport ak bu njëkk jamonoy Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade mu mel ni yéen da ngeen gis ni ci seen wàllub ñaan yàlla suñu borom da ngeen gis ni léegi ndaw ñi ngeen jàpp ni daal lépp ci loxo ndaw ñu lay mujjee ëllëg fa mel ni ay kanam yu bees daal ngeen yaakaar ni ñoo war a téye mi ëllëg. waaw gi ba ñu tëj ko mu génn fayut defut leen lan lañ koy taajawaat muy doon nan lañ koy taajawaat mu yore àddina mu yore nguur gi hmm. ñoom ñi lekkoon te fayeeguñu gëqaguñu nan lañ leen di taaja ñu ñuy jiite wala senegal dañoo gumba wala lii dañu fàtte dañuy fàtte hmm. ki nga xam ne lekkut ñu ngi ko jiite lu baree baree bare jiite ko loo xam ne lii macha allah Sonko gore alal ju bari lañ ko ji la jiite woon lekku ci dara te néew ko yaa lekk li mais inspecteur rek la woon de. impôt domaine impôt domaine. anam lu mu fa lekk lan la fa lekk lekku fa dara set wecc ñu tuumaalaat ko ci jigéen mu set wecc waaye nañ bàyyi jàmbur bu mu génn bokk wax dëgg yàlla yàlla rek kay kenn. Mhm. ñëpp ay nit lañu. dañ ko bàyyi mu génn bokk. mais est-ce que nekkul tamit Sonko ci côté erreur communication moo ko yàqal lu bari maanaam génn yi mu doon génn. di wax ba mu ko ak bërëb bi nga xam ni moom la demoon ci siwit bote boobu lu toll ni ci kilifa gu toll noonu est-ce war na dem foofu tamit. dem ba de wax naa ko nee naa ko moom ci jëm boppam dafa a bàyyi wax ji ak yi muy génne nii te toog ba ba jot mu génn. Mhm. waaw naa ko fii. Mhm. ak njuumte daal nga ci gisoon ni am na ci tamit. njuumte gi mu def googu nag. Mhm. buñ ko ko jàppalee day xaw a metti nañ ko bàyyi mu génn. bokk bañ ko bañ ko defalee bargeel yi ci buntu këram yàgg na dafa ñuy julli la woon mm-hmm. te nit la Sonko nit la ay jabaram nit lañu dañuy génn dañuy doxe dañuy dem dañuy ma nduggi dañuy lekk dañuy naan dañ ko xoolaat nag keneen ku mu doon doon ki sa bopp d'accord ok léegi euh, ci kaw erreur yi mu def yëpp motax mo legui nak nenañ ren élection yi du bok wax deug yalla lan ngay wax ndaw ñi bala ñu ñëw nak ci sa walu xam-xam parce que ndaw ñi it wax deug yalla say dom lañ et puis gis nañ ni tout le temps dañuy utiliser ndaw ñi pour ñi faral di génn tamit taal di am te taal bu amé wala yàq am mën na jur lo xamni ne kenn du xam fu muy yem. ñu ne dañu wara a bàyyi gi sax ak taal bi ndax ñun suñu dom yépp jeex nañu. te amuñu nak suñu dom yépp dee nañu te amuñu dara. mo tax xale yi jël nañu yoonu teer bi dem wala liggéey te amuñu jël jël gaal yi di dee kon ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp jëlaat suñu doom nag yeew ki suñu ndigg xool lu ñu war a defi lekk ak naan baa ngoon la rek ak tàkkusaan ak midi jëlul rey sa doom baa nga di ko dongal naan ko wutil wala ñoom ñuy dem di jaay seen bopp di rey seen bopp ci biir ndox mi di góob seen bakkan ñu leen fetal ñuy dee. dañ mm-hmm. leen xoolaat suñu bopp yàlla su la su la wàccee bind la dina xar sa gémmiñ gi dina la jox loo lekk dina jox loo naan. ñu bàyyi yàq yàlla bu baax. <laughs> parce que li ñu am buñ ko yàqee ñoo ko moom ñu ko ah. yàq. li ñuy yàq ñoo ko moom te saa ñu ko yàq ñu sonn ñun ñii nga xam ne ñooy njaboot ñoo ñoo ñoo ñooy seen i kilifa. te lu bëri dañ ko lebi sax dañ ko lebi dañ ko jéggaani dañ ko leb pour defar ko. xam naa ne moom yàq gi moom métti na ki ñun de ndax heure bu ñu yàqee rek yokk gi mett ki jëkk bi waaw sama kalaas gi boo xëyee war a defal sa njaboot dund bi yokk dafay metti dañ xoolaat suñu bopp suñu doom yi ñu waat leen yedd leen ku ci nekk dem seetuloo def booy menaa baru sax baax na mi ne ba sax baax na mm-hmm. bul xuloo bul xeex bul xaañante bul dóorante ndax lii lépp day jeex dinañ dund ba ki war a toog te yàlla war koo teg ci pale bii yàlla tànn na ko pare mu ci dara mu jeex ñëpp xëy dem wala tànn na ko pare bu ma doon nit ñi dinañ jox teeyaat seen tey bakkan julliwaat xool bu baax julli si na bi mu lay ndeysaan war na yàlla ki yàlla teg tànn na ko ba pare ku mën ki dara. d' accord euh, fin bi dinañ ñëw ci mujjug ëllëgu Ousmane Sonko euh, bëri na it léeg nga gis ay borom xam-xam yoo xam ni munu dañ leen lañ leen koy tuddee di xëy naan lii mooy am lii mooy xew te ku mel ni ajaratu faama dañ la daan faral di dégg nga naan palaasu yàlla kenn du fa taxaw. diw dana dee kilifa gu mag fii moom képp ku xëy soo yeewoo di. soo yeewoo dégg dara. Mhm. ndax àdduna moo ni mel hôpital boo dugg di ñàkk dese wala nangam. wala ko mhm. feebar ba sonn. Ah, mais léeg-léeg nga dégg ay boromi xam-xam yoo xam ni sax jour ñuy wax naan lii dana xew pour di dox ci maayanu nu ñi. yow en tant que yaay borom borom ñetti guy yi ngeen am ay rawaan am ay rab ba tax tey ngeen yëngu ci wàllu ñaan. xale yi jël ko rek def ko yoonu tool donc loolu tey ban taxawaay nga ci am ak lan nga ci gis par rapport ak tey ku ñëw rek. ne li moy xew suba li moy nangam te japp nañu place yalla kenn du fa taxaw lan nga ñuy wax ci lolu man wax na len ko fi de ne naa leen bu da ngay ñaan rek tay ñaan bo gisé lo xamné mi ngi jëm ci ki doom adam yi te ñun ñep ay doom adam lañ xañ na yalla la may gis-gis bi defal sarax defal sarax def ñaan bu tital kenn bu xoxtal kenn bu na li day am ndax doo yàlla du yonent bi. te xamoo man de wax na ko fi ba sëriñ si wax naan ay lii sëriñ si wax naan moytu leen lii daa am kilifa dina dee kii dina dee oto be boo ko duggee nangam loolu lañ ko bàyyi. li war a man du ma ko mas a wax sama gémmiñ. wallaay dëgg la ndax du ma yàlla duma ma yonent bi. wallaahi du ma ko dugg samaan. parce que loolu seen système la maanam pour nax nit ñi quoi. pour nax nit ñi tiital nit ñi tiital damaa damay tiital nañu ñëpp. te seen gémmiñ yi dama ko yàlla jégal wax naa leen danaan naan seen gémmiñ yi daa xaw a am barke ndax saa yu ngeen waxee rek musibam naaru lay am nu wax bi la ñu war a bàyyi wax bi lañu war a bàyyi yàlla rek a fi nekk. Mhm. kenn nekk fi ku dul suñu borom. wallaahi. xanaa li ko fii saa yu vidéo maanaam système mu marketing la ci ñoom. wax lii tey mu tombé nga xëyaat génnaat na nangam. te yow la nga reeree démb xam te yonent bi nee na sa nooy amal xel ñaar ndax dina wàccaatam déet. waaw wallaay dëgg la. loolu lañ ko war a bàyyi. dañ mhm. ko war a bàyyi man de. Mhm. ba ma dalee génn di génn ay vidéo ba nag ni mosuma te damay gis. damay gis man pharmacien bi damay gis mosuma ta génn fii na nangam ak nangam dina am. suma xeye dal, dina jël sama gas be jël sama cinli togg sama laax su de ciéb bu ceebu yàpp lañ mëna a génn dama koy génne bu de ginaar la dama koy génne bu de xar la dama koy rey. ci lo xam yow ya ko gissal sa bop rek. maa gisal sa bop ma mom sama xaar do togg diko wax. ma mom sama xaar dama koy def wa loolu am ok mais ñu gis ni mère Fama da nga fonku sarax. parce que nag wax dëgg yàlla euh, xëy na juróom-ñetti guy yi di ñu leeralal lan moo ko indi ndax dañ lay am na ñu bari ñoo xam ni duñ la gis nga génn waaye dañuy dégg ajaratu faamu borom juróom-ñetti guy yi. Mm-hmm. mais dañoo gis ni danga ngaa fonk sarax. lan mooy njariñu sarax dëgg-dëgg parce que li nga koy def dafa bari te am na ñu bari ñoo xam ni nekkuñu fi ñii ngi bitim réew ñii ngi fii Sénégal nekk ci ay xar-xar wala ci wàllu xëccoo ak lu mën a doon nga feeñ ci télé ñàkk feeñ ci télé nga ci internet ñak a ci internet mais yaa ngi leen di jëmmali ci say sarax ba sen aaju di mëna faju mais secret bobu fan nga ko jëlé et puis lan mo la koy dee parce que chaque fois comme ni nga ko waxé ni sa biir kër. li nga fi génn sarax dafa bari ñu bëggoon a xam lolu lan la secret hmm secret bobu dina la ko wax. li tax ma di secret bi. ma camarade ma sama dëkku maam hmm. ah juróom-ñetti guy yi ñu wàcc ba dem yóbbu sama lépp ak lu ma war a tuurook lu ma war a defaroo ma defar ñuy tuuru di tuuru di tuuru ba bëy bi génn bëy bi bees tàq ma ne ko yow diw doo jël ci kii yi nga laal ndax lii wóoru hmm. mu ne moom du laal lii du ko lekk ba ñibbisee fii guddi la ma fëgg guddi loo sam yi wëlbatiku jëm ginnaaw man mama gi maama gi dindi sama samay nga fa affaire ma defal ko ñun moo tax ñun dañuy tour borom juroom ñetti gu yi day tuuru de man damay tour damay joxe guro damay ray xaar damay def lepp parce que lool ci bopam moy sama sawetaas moy sawetaas ñi may liggéeyal moy sama sawetaas njabot wa d'accord no mais dañ né manam ñariñam deug sarax lan lay def ci nit ñariñam deug parce que dañ la gis ni yow da nga fonku sarax. ñariñam deug ñariñam deug deug deug lan lay def ci nit damay wo fi ma ñuko defal saraxam bala mo yegg ajoom faju lool mooy ñariñ <laughs> soxla nit ki waaw soxla nit ki mo woo ma fii na defal ma nangam ak nangam li la bëgg ma génne ko saraxam ne ko def ko dafa say sarax ba pare bala bala ñu la laala dara ngay def say sarax ba pare man naa am tax boo defee say sarax ba pare yalla ubbi la buntu ba nga bëggat mu ñëw ci gëna gaaw ah lool motax may def sarax yi. d'accord pour soxla doomu aadama. nit ki am problème soxla doomu aadama rek. bala nga koy defal ngaay wala dara lo ko sarax pour aajo mëna fa ma ma lo ko sarax aajoom faju man lool la bëgg ci barong. suñu borom. d'accord léegi sarax yi nga xam ni mère Fama mu ngi koy génne dafa am loo xam ni moom moo la koy wan ci wàllu bagage yi nga xam ni yaa ngi koy seetee ndax léeg-léeg ñi la xam dañuy jox information ni mère Fama day seet ci wàllu ndox wala petaaw wala ci loxoom wala ci kurusam te alors ko seet yooyu ngay seet yow mun nañ wax ni Sénégal bu ñu doon compter ñi dàq seet ci Sénégal yaa ci jël paie waaye ci la kaw loolu. parce que nag toog naan damaa mën seet ni yomb na parce que les xalé yi lañ ko def wala internet yi wala ci télévision yi dem di fay pour wala pour def mais ku ci mel mère Fama wax deug yalla wax nga légui ni da ngay ragal sax di gis wala da ngay gis dara sax wax. da ngay rek sarax pour mu parce que juroom guuy moy am ngeen ay tour am ngeen ay koy wax mais lan moy manam set gi euh, euh, lan lan nan nga ko ba tax tay lo ci wax ni du dañ ci gi wala ci sa wayjur bu goor la wala kan moko don def. wala ci rawaan yi la mam ji juróom juróom ñett guuy ci mam ji dañ ma koy déeli rek dama koy xol diko gis ci pitaw yi baaw ji di ma ko déey guddi ma diko ko diko gis te suma ma xëyee damay sarax ci mam ji la. amet pitaw yi suma ma la seetalan tey jii wax la dara nga diko sabantal naan ah maire bi da naka ak nangam koy gis dara ken mun ki dara yalla mako may. suñu borom la du man de yàllaa ma ko jox ak sama tuuri maam yii. d'accord mais sa seet gi day génn alalu sàcc ku ñu sàcc alalam ku ñuy xeex ci sëyam ak problème boo mën a am bu nit ko tuflee turam ak turu waajuram li lépp loo gis si moom di nga ko ko wax. boo nekkat ba bitim réew ma wax nekk saw ma am client bitim réew yi dañuy toog ma di leen seetal ñu ne meer xanaa da ngaa dend ak ñun dañ ñoo dañ laa woo wax lañ. seet yombul de. <laughs> seet yombul de. ñi nga gis ñu lal seen i basang tànt seen i waaw laaj nit ki vie am yëpp ba pare waxaat ko ko di wax ah. <laughs> yombul de ah, am na ñoo xam ne dañ lay laaj ah laaj la sa vie yëpp allo fu sori sa tur rek laa la laaj salaamaaleykum allo fu sori sa tur rek laa la laaj ma la turu ndey laajuma la turu baay laajuma la sant laajuma la dara sa tur rek laa la laaj te su ma ko tiflee daa nekk sew seede yàlla suñu borom che të të të të d' accord léegi non bàyyil mu sonné léegi. xëy na ñii ñi la client yi la léegi maanaam euh, est-ce que d' accord nga ci koo xam ne tey ci xale yi léegi façon seet gi ñu jël laaj nit ki vie ba mu neex la nga jaaraat ci loolu seet la. <laughs> man fi ne sama doom bu jigéen fi ne nii moo ma dàq seet waaye du ko def xalaatu ko sax ne naa ko doo ko foye ndax fii lay toog may seet mu naa ma yaay lii la yii lii la yii lii la lii la te moo ma dàq seet. c'est ce ci ñun la suñuy tour. la. mais un su ngeen gisee tey xale yi di ko def ko genre un genre théâtre pour soxla dara. Tok tu ci télé wala ci internet wala ci TikTok pour def ko. kooku lan nga koy conseil non pas sa dom. ñi koy def laa wax di nga ni quest ñu ngi koy fowee lan comme sama doom man a sama du parce ay lañ te li ñuy du li ñuy du n'est pas li ñuy n'est du Ce du pas nga yengal lii rek di diw nangam ak nangam tam dara khas dara amu ca man damay setan fi direct lele damay setan fi direct mu leer man ne limi wax lepp dara amu ca da ngay reba de damay reba beug de lacc nit ki no tuddu mo la nangam fo dekk fo liggey mu wax la lacc ko limi liggey iya, yeb yëpp wax la ba pare nga jaarat ci lolou koy nekatul set nekatul set deug la set da ngay da ngay lacc nit ki turam rek sanil ko la ilaha illallah lolou moy set. moy set. d' accord mais bala ñuy tàggoo est ce que ajaratu faama dina régler problème mu sëy ki doon sëy même yàgg am problème wala ki ki jëkkëram fase mu dem wala koo xam ni dafa bëgg ñëwaat ak jëkkëram wala ngay bëgg jot jabar mu noo cee jot bala ñu ñëw ci wàllu kayit yi tëj émission bi est ce que mère faama dina régler problème yooyu maanaam problème mu néegu sëy surtout. ay amet li ma régler ci sama néeg bi ci ay problème sëy man li ma régler ci problème mu sëy fii ci sama néeg bii nit ku takk bagaasam ba teg maa la tekkil sa ma ne ko laaju ma la. def la dara sa andando bi nga yor mo bëgg dak sa jabar mu dem te suma ko dindee mu tok la ilaha illallah mi ngi sey amna na ko ma bàccuwaan ba ki démb la ngenté yagul dara mu ngenté doomam ju gor andil ma fi sama wal set dang koy man juddul ko don ko. kon problème seydou am rek nga ñew rek jaxase carte yi. jaxase carte non non il faut nga def yëfu kilifa d'abord. ok tay ngay def tay tay ngay def tay dañ koy lijeenti man sama doom dama lijeenti bañ tok ci seen sëy moo tax doomu jaabur gi mag dama koy lijeenti kum def ko sama doom dama koy bo boole ko dina defal ki suuf lepp jaam. chien të të të nit ki mer rek bëgg a jabaram pour mu dem yoonam. ah rawaan bi rek rawaan bu soxor rek rawaan bu soxor rek. d'accord mais même femme dañuy dégg ñu naan rap ak rawaan est-ce que benn la da nga am rap di wara da nga am rawaan rawaan lan lay def ci nit ak rap problème bi lan est ce ben la. rab ak rawaan du benn rawaan day nek ci top di la yàq say bagage di yak say bagage so amé jabat mu di la puus soo amee sax ma di la fiire rab dalay lay daanuloo Mam da def la yeneen biir mook rawaan nak so rewuñu mais rawaan day nek ci doma aadama ko gis amna na rawaan mais rawaan di ñu gënënt dafa am rawaan yo xamna ño bax dañ lay hmm maa la wax d'accord. am na léeg-léeg euh, mooy rab mooy ki nga xam ne day jékki saa yi di. di di daanu wala muy indi yeneen façon wala muy absenté. wala mu mel ni ku dof wala mu dàpp la ngay dem loolu mooy rab. d'accord euh, am na benn façon cuuraay boo yor boo xam ni man mii. <laughs> fan yi paase sama yaram bi dafa am nu mu doon def mais gis nga bi ma ko laalee sama yaram bi di tàng te diggante bi muy tàng ngi jël timis jàpp vingt heures billaay mais bi ma bi ma ko laalee man maay seere de man bi ma ko laalee dafa mel ni dafa am lu ñuy rocc muy génn ci man kon dafa mel ni hmm. seytaane am na ah moo am ak jàmm seytaane am ak jàmm waaye nag amul gent amul gent gent booy laal booy bu fekkee ne bii ku ko man defal na la da daal di bàyyi ki saasa

boo waxee moom mun a xëlëb du toog ak kenn gaaw a mer rek ñooñu it lan la. rab la ilaha illallah. rab rab manam naa doomam su ma ko joxee fay garab duma faale rab am na jabar bu yàgg wàcc na ko ndax rab rek rawaan bu bon rek rawaan baaxul. yu xam ne dañuy masir beewu par guddi gi bàyyi seen jabar yi toog fale nga baal ma ci kàddu gi kilifa nga dem di foowee seen bopp mësoon nga ko fi doon faj parce que yàlla dogal ni yaa ngi faj góor ñi nga xam ni ci la ñuy tëjee sax émission bi mooy jigéen ñu ta am doom ci wàllu laax yi ngay joxe ak góor ñi nga xam ni seen man ni dafa oyof ak góor ñi nga xam ni rab dafa delloo seeni awra loolu moom ñun gaal seen people mun nañ xam nañ wax ni mun nañu dëggal ni mère Fama yaa ci mën waaye dama ni li ma doon wax léegi mooy góor ñi nga xam ne dañuy foowee seen am jabar bàyyi ko ci kawlal bi dem di fo dem di fo dafa mel ni loolu it daan nga ñu wax ni rab da koy indi. rab da koy indi rab da koy indi ba noppi te am na ñoo xam ne ñi dañoo tàmmal seen bopp loolu seen vie la. laa ilaha loolu seen vie la dañ koo tàmm moo leen gënal jigéen tàmmal nañ ko seen bopp ba yàqu nañ waaw loolu dafa am. nan la ko tubaab di tuddee auto érotisme. auto am na. fooyee sa bopp seeg sa bopp yow dong dafa am waaw. la loolu dafa am na ñoo xam ne ñii am na jigéen ñoo xam ne sax loolu la def. dañ koo jënd du ko ci seen biir nekk teg ko fa waxuñu ci góor dara waaw loolu dafa am. mais am na ci loo xam ah kon jigéen ñi god monsieur fi ngay waxee mooy am na loo xam ne naf su bakkan la mais am na loo xam ni rab la. waaw rab boo déggee ma naa la rab la. ñu maye la tey nga sëyi nga lànk na doo fa toog sa jëkkal laal la nga na doo ko def loolu rab la mbaa ma am ko la doon bëgg. dëddale moom di jël wàllam. la ilaha illallah ñaar yooyu rek mooy am. waaw. waaw waaye ki nga xam ne xel amu ko moom te nanguwu koo am bëggu ko tàmm na koy sëy fooyee ba muy xale ba nëgë loolu mooy vie am kooku moom loolu mooy vie am lu bëgg nekk ak kenn loolu mooy vie am. ma dafa am lépp lu xew ci société bi xam na ko. dee leen ko xaar fii Galsen People waxtaan yu bari dina ñëw ak moom li nekk ci moom bari na moo xam wàllu rab wàllu seytaane wàllu jinne ak li nga xam ne moom mooy wàllu papier sa doom yi nag wax dëgg yàlla ñu bëri jaar nañ ci yoonu suuf yi te ñu bëri nag am na ñoo xam ne defal nga leen macha allah xale yu bëri yoo xam ne jaar nañ ci yoonu. nigro gaar gi. Mm-hmm. jaar nañ ci yow ba macha allah ay sarax nga leen génnaloo yegg nañ Amérique. yegg nañu te Amérique naa wax ni mooy dëkk bi gën a naqadee jafe. dugg laa yegg nañ waaye sant yàlla ñu bari yegg nañ. yeneen yàlla defal jàmm. amiin yaa rabbal aalamiin amiin la ñuy wut ba tax ñu dem xaru ba dugg ci gaal yi yal na ko yàlla bàddil foofa bu ñu seral seen xol ndey seen waajur yi seral seen xol barka Muhammad ñaanal naa leen ko. moo baax sarax nag sarax moom moo ci mën xam sekkerewu sarax nag dafa am solo ak di ko def. sarax. Mm. moo gën sax ñaanal ma moo gën sax dem di wut ñu la defal ngay takk ak naan. ama dama la sarax lu ne la ma def ci doomu aadama ci bun la ko xam bu ka la koy defal bu ko xamee ci bunt bii ci buntu bii nga war a jaar def sarax bii mm-hmm. def sarax bii bii soo ko defee def lii def lii da ngay dem jarul sax takk d'accord euh, lan ngay tàggoo parce que nag bugguñu waxtaan bi gudd euh, lan ngay tàggoo ak lan ngay ñaanal sénégalais yi sa doom yi lan ngay ñaanal surtout Sénégal fii réew mi yàlla def fi jàmm élection yu ñëw jamu ci jàmm kuy tok toog ñu ñaan lépp lépp nekk jàmm te nag képp kuy wutu fitna dandama sore fitna mom baaxut. man de wax naa leen nee leen fitna bi mom dañ ko war a bàyyi comme Macky Sall moom bàyyi na lépp ñun tam nañ bàyyi lépp nag te mu bàyyi ñëpp bok dëkk bi neex. su bàyyee ñëpp bok dëkk bi neex ñoom ñoo xam bu ko bok nag soo toogee ñu xam ne yàlla la fa teg dégg nga fi na nii du bok ki du bokk coow li jógatee xeex bi moom dara jaru ko ci adina Sonko nag sama doom la du ma ko nëbb kenn man maa ko bëgg te yu bari it am na yu ma ko defal yoo xam ne damay jóg guddi dama koy gis ma defal ko wala ma xëy defal ko xamuma ko mësuma koo gis man maa ko bëgg. am nga ci droit. ko bëgg de. ragal pété day man maa ko bëgg. mais itam bool yi mu yeble moom na ko bàyyi su ma déggee na ko bàyyi ku bu ma déggul ku ko dégg nag ko jot fi li baaxul dañuy indi fitna. jinne yi mag yaa ngi ci biir kàmb bi jur nañ ba fees dell amuñu fu ñu nekk te bu dóoree bool yi ñu jóg génn génn tiy fel oto yeeg nit ñi dañu bàyyi bool yi. Euh, dañuy faral di dégg mère Fama ah, borom laax yi sunguf yi wala juróom-ñaari sunguf yi. jigéen ñu bari taxaw nañ. juróom benn am doom. Ah. jigéen ñu bëri dañoo taxaw mënuñoo jël ëmb. te mm. wax wax nga cause yi koy indi nga cof ci foofu ñu tëj parce que semaine émission bii di ñëw danañ waxtaane spécial luy indi njurum doom ak lu koy indi ñàkk indi ak ni ngay def ba faj ko mais jigéen ñu bëri taxaw nañu sunguf yooyu lan mooy njariñam sunguf yi sunguf yi mooy boo ko laaxee mhm. dina raxas sa biir ba mu set am na ñoo xam ne ni jur ba noppi seen buttu njurukaay bi tër ñu ko du toogaat palaasam pour doom mën a dugg toog léegi nag laax yooyu soo ko laaxee dafay dafay dafay dafay dafay dafay bawaat doom sa butit taxawalaat ko doom yi ñoo mën a placé mooy waral noonu sa biir di metti nga gis sa pot sa pot du réglé du normal. sa pot bu réglé du normal. du normal. ki réglam jékki saa yi taxaw nag ñëwatul te âgé wul. mënu maanaam mënu mënugul tollagul fu muy mën a posé. waaw ah, noonu ba tey rawaan bee ko baare rek rawaan bee ko baare. gàllaaji rawaan yi mi ngi fi laax yi mi ngi fi man su ma la seetalee damay xam ne xel bu ma xamee ne lii ga rawaan bi moo téye sa sëy wala moo téye sa sa njurukaay dama la koy wax. seede yàlla. waa paree jox la laaxi. oh d'accord jërëjëf kon nag ñu ngi lay sant di la gërëm ci Galsen People waxtaan bi gudd na guddul waaye yàlla dafa dogal ni rek ñun bu ñuy recherché dañuy xool ñu mel ni yéen ku mel ni mère a ajaratu faatu ngoom ay roju maire ki nga xam ni mooy maman Talibé Cheikh naa Cheikh bu ñu mel yéen a a topp. Mhm. ndax yéen wax dëgg yàlla am na lu yàlla def ci yéen te macha allah da ngeen a ku la fekk fii nga nekk xam ne oyof moo la fi bàyyi. Mhm. bëggoo kenn ku dul yàlla ak yonent ba ak Serigne Fallou. ba am doom tuddee ko ko. muy waxambaane di daagu ci kër gi. ñaan nga ba pare. Mhm. damay damay dugal damay dugal tuuti sama xale yi nga xam ne. ñi nga xam ne dañoo toogoon. jànku nañu ñi mag jànku nañu ay fanweer at ñu jànq nañu bay bëgg a jegañ seen ñeent fukki at. ndeysaan toog rek. Mm-hmm. du doon rab de dañ leen di dëj xam nga dëj mm-hmm. ni tey ñëw bëgg si la ca ba ngay rafet ca ba ngay ndaw te ba ngay ba ngay mën a dem mu ñëw bëgg si la def ci yow di la nga di goronte yow di ñàkk ci yow di la defal lu nekk loola ak loola nga toog ba yàgg jànni ko na ko bëgguma mu dëj la te dëj daa am lu koy dindi wax la ko nag am na lu koy dindi man damay dindi dëj waaw dëj waaw man dindi naa ko ba ki dem ci koo xam ne ki fanweer at ak juróom am na ko ñu dëj ko da dindi dëj bi boole ko jox ko gàllaaju rabal waaw may nuyu sama jànq jooju nga xam ne nag macha allah ñu ngi ci seeni sëy ñu ngi may woo toujours fii ñii am nañu doom ñu amaguñu doom te yàlla na leen ko yàlla may baax na yàlla leen ko yàlla may jërëjëf mu nekkoon ajaratu Fama Sène fii ci Grand Médine mais nag boor bi nga xam ne mu ngi nekkee stade amitié fi ñuy passé permis numéro yi mooy affiché ci bas d'écran bi euh, boo ko soxlaa rek incha allahu taala boo wootee di nga ko jot mu mën la seetal nga wax ko say problème ci sutura mu réglé ko ci sutura jërë ngeen jëf merci beaucoup